<laughs> wuy ma. ñama sa di. ma ne eh. ay eh. ay eh. Eh. Oh. mos leen ma ma dikkee moo ko moom moom tànn leen ma la tànn leen ma. waaw da bëgg lii sàcc yi may daal sàcc yi tànn leen ma. fii nee na rajo <laughs> sàcc yi ba ngi daw. Mm, mos leen ma nanu wàññi. waaw. benn la caisse noire la caisse noire benn. caisse noire les fonds spéciaux soi-disant dits spéciaux ou politiques ou on ne sait pas mm entre la, la présidence de l'Assemblée nationale mm la primature la présidence de la République le budget de la présidence de la République qui dépasse les quatre-vingts milliards le budget des ministère alloués yi nga xam ne dañ nekkat ministère bu nekk lii moo la liggéeyam parce que nangam nangam nangam waaye ca ministère ba la moo liggéey am na ay charge charge yooyu yan charge la lu nu wax noonu lu nu wax rek benn kilifa yi noonu gën a xam les dépenses dispendieuses de l'État du Sénégal depuis deux mille à maintenant les libéraux baal leen ma de waaye loolooy dëgg depuis l'arrivée des libéraux mmh. les dépenses de l'État du Sénégal sont devenues dispendieuses au temps de Diouf quelqu'un me dira oui affaire yi dafa changer xaalis bi dafa yokk valeur bi dafa yokk au temps de Diouf le salaire du ministre n'atteignait presque pas le million aujourd'hui vous avez des salaires qui dépassent le million à mhm. deux ou trois reprises dafa bare bu ñu ko waxee ñu ne ñu non non non ñooñu dañoom ay charges dañoo am dañoo am ay jaboot dañoo am ay kii parce que xam nga poli hmm. homme politique Sénégal hmm. xam ngeen ni muy demee ñi leen di wër day bari waaye waaye waaye bu ñëpp amee dootuñu leen wër bu nit ñi amee le minimum dootuñu fees seen kër yi hmm. on n'a pas besoin de nous accroupir devant vous devant vos portes di xaar kilifa bi non dafa nekk réunion dafa kii ministre ñëwagul ministre de ay deux heures du la fi ñëw kër ga fees dem ñu toog di xaar ministre war a ñëw di joxe non ces charges là mhm. il faut les diminuer en en dix ah, neuf en en mille ci lan deux mille vingt quatre xaasan kii wanteer xanaa <laughs> kii mënu la bàyyi kii moom booy wax la raba bi ñu di bañ ah na bàyyi lii lii dafa ñaaw acca yeggal fi nga nekkoon baax na <laughs> lu mango ah ci consommation locale bi la ci la bokk di li muy jaay da ngeen ko waxee. maa ngi nuyu ah, maa ngi nuyu dinaa ci nuyu sama. kilifa bi sama ah, kilifa bi sama kilifa bi nu mu tudd. <laughs> Euh, euh, sama kilifa sama baay bi sant lii. te nekk Ziguinchor. Mhm. barki dem daf maa envoyé carton mango. may <laughs> yow nag gis nga sekk wax ci kaw. <laughs> li ma naqari ci sama ànd ak yow kaay ma wax la ko tey. yow man ngaa réceptionné waaye mënoo partagé lii def na ma carte boo paree dangay ngay publicité ñaar lii def ma naqari ñaari yoon <laughs> yow kii sa papa ji day réceptionné ay carton di réceptionné ay siwo di réceptionné lu ne bu ko réceptionné ba pare ba ni ko dënnu yéex lekk. bu paree toog fii def publicité balaa toog kii dafa baax de. nga ni. bëgg ku bon ma moo tax mën koo andi. nga ni mango ma ne bu ko séddale woon def ko ci ay mbuusi mbuus. mais gerte nga sa kaab gis naa la nga koy dee ngoone gis naa la. xam naa sa digganteeg mango. boo demee jaaykatu mango bi yaa ko jox rendez-vous. ñoo ne ko mu ñëw 10 ah. ko mu ñëw 10 heures waaw loolu moo tax. muy Pape Ousmane nee na ko càq-càqisé. càq-càqisé. c'est tout fekk fi nga nekkoon dafa baax jox aram mbuusam jox ko ne mbuusam. waaw xam nga ne mango méttiwul lu metti non mango bu jugee fëlee metti sekk yegg na <laughs> doom da ca wax nga ba fi nga nekkoon baax na lu war a wàññi la it de moom mango ah, ah mais sëñ bi baax na ñu dem est-ce que du ngeen delluwaat ci njëg yi si waaw moo gën di intéressé Sénégalais yi trop pap ah. ñun jamono ba ñuy doon tout tànk di football ah. dañ daan dem witti mm-hmm. ñëw rek mu wàcc rek ñu jël dem loolu la ñu xam tigi sunu kër maam yi da ngay witt moo xam grenade moo xam orange da ngaa gerte tubaab dégg gerte tubaab. ay waay maam Bane ak maam Bunaan maam Assane ak maam Amin. ba ci papaaya sax. Eh. en passant. oui. quand vous avez. donc rek la ñu witt. on on on ñu ñu waxtaan tuuti. la pléthore d'agences. Hmm. waaye da nanu wàññi nanu wàññi nanu wàññi danoo war a wàññi te dañuy wàññi danu wàññi kilifa bi Bassirou Diomaye Diakhar Faye le président de la République merci de la préciser mhm. effectivement il a di nañu ko tegal affaire yi mu am lisibilité pour que mën mën a transmettre la visibilité de l'action qu'il va poser mmh. n'est-ce ah, ah, ah, maa ko xam dëgg dégg tubaab xam naa li ma la wax. maanaam dafa ne tegal mooy li Aram wax tegal leen ma affaire yi bu ñu ko tegee ñu xool et li possible ñu def ko c'est limpide en parenthèse dafa am nag ñoo xam ne fi ni ne jamono ji dañoo ànd ak waxu waxu xam boo tiitee da wax rek mm-hmm. les rapports suivant les rapports. les, les rapport, conséquences des rapports. Partant de rapports pour des conséquences. Mais les semences rapport, après rapport. Semences, rapport, rouler, de récolte. Mm -hmm. Vous récoltez ce que vous semez. Oui. Et en récoltant ce qu'on a semé, si c'est bien, alhamdulillah, si c'est de la paparasse dévergondée, de déperdition, mmh. vous avez peur. Aïe, aïe, aïe. C'est ce qui arrive à certains qui, xoolil xoolil ñoo la wax wax la. li ñoo wax nag yeneen da nga da nga ne wàññi wàññi leen ngeen xaar wàññi leen ñu ne ok d'accord Pape nee na mën naa ne de wàññi dafa war a am parce que nit ñi xaar parce que ci biir campagne bi on a parlé des conditions de vie difficiles des Sénégalais mhm. oui war a wàññi passement loolu waroo ko wax de kaay wax la li mu wax kay non parce que yow soo soo ma waxee loolu rek d'emblée lan mooy ñëw sama xel moo di ne moom ci équipe bi fi nekkoon la ne kon dafa ñu bëgg wax ne mënoon nañu wàññi ñoom ñu toog ci ce qu'il dit c'est paradoxal par rapport ak li nga xam ñi fi nekkee lañu war a ñu wàññi parce que ñoom xëy nañoo ñoo gis fenêtre yu ñu mën a jàpp def ko mais moom mënul bokk ci ancienne équipe ba pare di wax loolu Pape Malick nee na un renoncer à tous les impôts et taxes sur les produits importés lu tax wax ko président Macky mën naa ne mu ne ñaar xaaral mu ñëw parce que ne subvention mhm. aux importateurs pour atténuer les pertes commerciales découlant de la fixation des prix à un niveau plafond trois mu ne surveillance accrue du marché quatre focus sur le prix de l'énergie qu'il faut maintenir à un niveau raisonnable mu ne c'est pas difficile c'est du classique et une pratique courante léegi nag am ñu koy laaj waa li ngay wax nii xanaa tey nga koy soog a xam mu ne déet def leen ndànk réponse yi dafa simple ñun yàgg nañ koo def te am na lu koy firndeel mooy ci mhm. espace UEMOA ku bëgg preuve à l'appui demal xool Sénégal fan la classé mu ne farin trois cent soixante dix kilogrammes riz mu comparé ko ak Burkina Côte d'Ivoire Guinée Mali Bénin pour wane ni Sénégal mu ngi ci fu baax fi soo ko comparé réew yi ku bëgg nag mën nga caa yegg lii la indi comme réponse démb bi est kon yow moom moom mënuñoo wax ñoom bi ñu fi toogee pendant douze ans ci seen magistère benn yoon la ñu wàññi yokk fukk yoon ak juróom-ñaar. waaw loolu leneen la. léegi Pape loolu da war a ñoom ñooy wàññi ñaar dërëm. yokk fukk. sans gêne non fi ñuy wàññee ak fa ñuy yokk ak ñoom lan jëlal may nañ la ko jëlal moom nawet yenn yi tamit mën na merloo nit. waay non may leen ma lii. ayca. kan Euh, Pape Malick sax yemul Sénégal yi Passemane mi mooy yem moom muy jottali euh, ay waxam. mën na ma wax de. non on on discute on débat. Euh, c'est vrai. Pape Pape Malick. mu ngi kaa Pape Malick kan nga wax. Ndour mu ngi kaa nuyu mu ngi kaa nuyu ba. léegi je disais. je disais fi ma nekkoon la. parce que man Passemane dama koy topp ba mu sës man dama yor ay données moo tax damay bëgg rek. waaw loo bëgg a wax loo bëgg a wax. c'est important. dama àggale. boo daaneelee rek mu ñëw ci données. may nañ la ko. non non dafa vous me perturbez. moo la dagg de c'est vrai tu perds le ah. moo la dagg de dafa nekkoon waaye ah, ñu delluwaat ci mango parce que Pape yow mi yaa yàq affaire bi. fi mu la daggee sax fi nga ko daggee ci wax yi. bon Pape ku bu nuy defar mu ñëw naan kër gi ni ngeen ko war a defaree da dañ ko war a bumax. merci tu entends ça. Hmm. voilà nga toj kër taal daay yow waroo wax da ngaa war a taxaw seetaan. tu maanaam yaa taal daay bi ñëw di wax bu la non non taal nga ñu ne yaa ko taal indi pénalité yàq su match ñu génne la match léegi nga ñëw naan bàyyi ko ak naan non non c'est que bu ngeen defee nii waaw bu defee nii bu non yaa taal ba pare naan bu ngeen defee nii dëgg le régime apériste n'a pas droit à la parole xam nga lan la am hélas on vit en démocratie il va falloir les supporter c'est comme ça bu daan nu waxee daan dégg mais mais APR Benno Bokk Yaakaar amul lu nu wax ci réew mi par contre am nañu droit wax ci nag parce que dañ cee war a wax nag ñoom fi la ñu bokk mais man personnellement je peux pas les écouter ak respect bu ma am ci ñoom humainement je les respecte humainement on les adore même humainement mais mënuma leen naw ci wàllu liggéey quand je traverse may gis BRT damay mere APR dama naan ñii yan façon xalaat la ñu amee. BRT ba BRT vous importez soi-disant un million de tonnes de riz c'est ça cent mille tonnes de blé mmh. et cetera vous dépensez autant d'argent pour cela vous ne cherchez pas à être souverain sur le plan de l'alimentation vous prenez quatre cent milliards nom de Dieu vous donnez ça à des Français vous dites je vais faire BRT pour décongestionner la capitale cette capitale qui existe comment par l'exode rural vous ruralisez une capitale en faisant quoi en développant le fort de densité ouais. qui est de 26 pour cent nga jël enn sénégalais concentré leen biir Dakar fekk buuxante ne non damay defar BRT ci biir foofu pour nit ñi ba 400 milliards yi nom de Dieu vous l'amenez à la vallée du fleuve wala vous refaites vous vous faites de sorte que vous faites renaître les vallées fossiles vous faites renaître le canal du Cayor tracé waat ko irrigation am ci Sénégal partout qu'est-ce qui va se passer mbayum noor ak nawet noonu de jë ñu bay carotte bay supame bay pomme bay lépp changer suñu dund c'est après qui va gueuler ici ngeen baal ma. ah non non non ils sont offusquants. respect par internet dañ ma baal. non parce que APR dañ ma dañ ma teg psychose am na foo boo leen fa tuddee ci wàllu liggéey dama lay mere. Ah, waaw du mu exemple. espace bi ñoo ko ñoo ko. APR ñoo rey ay sénégalais. APR ñoo def ay crime ñoo tëj ay sénégalais APR ñoo tiim sénégalais mel ni noo tam mel ni malaaka yu ñu yónnee. ànd ñooy toog naan non non Pape bàyyi ko mu wax waay laisse le parler. je je je suffoque quand j'entends affaire de mm. yàlla moo ko def damay tiit nañu xeexee woon contre président Ablaye Wade à un moment donné di xataraayu parce que dañ doon jàppoon ne dañ tooñ Macky Sall ah. noonu lañ leen meree tey nu ko raw bekk suukar waaw mayu ko de mayu ma parewuma ah d' accord mais le naan ndox dama bëgg aram bu dagg lay d' accord vous plaît non dafa am fu aram doon ñëw ci Pape Malick très rapidement paasan duggaat ci njëg yi ndax actuellement yaa ngi doon tontu deux secondes rek may ma ko papa xam nga sànq Pa Ousmane day wax ma ne ko bugguma di lim li ma yor yëpp secteur privé euh, national plus de deux milliards lañ leen yore deux cent mhm. milliards euh, subvention bu ñuy defal Senelec mhm. bi état bi def deux cent cinquante milliards ñaataa ngi noonu cinq cent cinquante milliards cinq cent cinquante milliards. bi jege na quatre vingt pour cent PIB Sénégal. Mhm. déficit budgétaire de près de neuf cent milliards. léegi ma ñëw si benn euh, sànq bi ma koy wax prix essence bi fii Déclica ci benn étude bu ñu def c' est disponible nga dem Algérie en avril deux mille vingt quatre essence bi mi ngi jar deux cent sept virgule quatre vingt sept deux maanaam. yeggul sax deux ak kii mm-hmm. dix francs Nigéria li ma yëpp litre la Gabon cinq cent quatre vingt treize Ghana six cent vingt Bénin six cent quatre vingt Togo sept Burkina euh, Guinée yu teg tuuti ay fifteen Mali euh, nous avons mm-hmm. nga dem Côte d'Ivoire huit ñun comme ci lépp ñun dañoo bëgg Afrique ñooy jël paie. Mhm. essence bi di jël neuf cent quatre-vingt-dix. maanaam mille francs yu manqué dix francs parce que boo toogee dañu wax naa ñu au niveau Afrique. boo mhm. comparé lii ci e mois def nañ lii wala mhm. laa noonu la ñu amee yu yées tamit ci yoo xam ne bu ñuy pour quoi ñuy leen dakaar c'est une ville très chère ñu mel ni waa Luxembourg pour lan te amuñu avantage yu Luxembourg. nañu waxante dëgg. ce pays est cher. ce pays très cher. non loolu mooy dëgg dakaar fii nii nga yor fi benn montant bi nga jóge ci àll bi ñëw war a faju Pape Ousmane bu nit ki ñëwul dal sa kër du am fu mu dal. Ah, ah, du am lu mu lekk. alors que c'est un petit montant ba la doon servir tey pour nga dépenser ko tu n'es pas en mesure de le faire. exactement mm-hmm. moom bu mu toog këram mu am possibilité gérer ay kiiwam besoin lu mu soxla mu yaakaar ne noonu la yombee si ñeneen ñi. on parle pas pour nous mais dañuy wax parce que dañu am ay mbokk ci réew mi dañu am ay nawle ci réew mi ñu xam leen. Mm-hmm. ñuy dund yenn yoo xamante ne ñoom li ñuy wax ak loolu wute na. loolu euh, ñëwal ñëwal euh, jërëjëf. ñëwal jërëjëf merci pour l'équilibre. des mm-hmm. fois. c'est très important li mu def. merci pour l'équilibre des forces. nga xam ñoom fan yi xalaatee en même temps nag gële nag aussi du insulte gële c'est mhm. crier et parler très fort. loolu mooy gële. d'accord euh, euh, Samb. Mhm. merci de préciser cela. ayca <laughs> xulil. Samb Samb cours de grave. Samb waaw waaw waaw. bu la neexee xulil bu la neexee nga yokk ci IM trait d'union. BE accent aigu trait d'union d'union syllabe CI. ah yaa ngi dugg di. benn L E waaw waaw. oui ma baa ko defee. non là Pa Ousmane c'est important. non déggoo ma ne la IM. trait d'union BE accent aigu trait d'union CI trait d'union LE trait. vertical point d'exclamation. Eh. soo ko boolee lay jox soo ko boolee. mais nag tu peux mais nag tu peux tu peux tu peux faire l'agencement des syllabes. kenn du ko def tey. ci ah, mais parce que parce que du saaga du saaga constat d'appréciation d'un acte la. Mhm. aujourd'hui l'acte pervers versatile. oui. comme un burn out. dramatique qu'on a vécu dans ce ah, pays qui sait qui sait leeral leeral ça s'appelle de l'insistance pour montrer la gravité de ce qui nous a été causé ah comme tort ah xam moo la lan man nit ab affaire xam nga lan la ma ci am nit ab affaire xam nga la ma ci am lan nga di jàpp di julli yàlla rek a ma tiim mhm. di leen ñaanal ñu ne si jàmm ak seen ay njaboot falaa mën a yem yem fa mhm. mais mais je peux pas moi je peux pas respecter l'irrévérence mhm. quand des gens arme d'autres Sénégalais contre d'autres Sénégalais ces gens je ne les respecterai jamais de la vie. Mm-hmm. la ma amoon ci respect dañ mm-hmm. soo ko waxee ñu ñu ñu delloo la ko ne ñeneen beneen camp bi dañ ko doon def lan nga leen di tontu. beneen camp ban. non tu parles d'irrévérence. waaw yëkkati ay kàddu di jële ci benn sénégalais delloo beneen sénégalais. waaw ma ne boo leen ko waxee ñoom ñu jël ko opposé ko ci ne beneen camp bi tamit wax nañ ñu lii moo tax ñu tontoo. loolu leen di tontu ñoom ñoom ñan ngay wax ñan ngay wax waa APR. ma ne APR bu la waxee loolu. ne am na en face ñoo xamante ni nii la ñu waxee ñun moo tax ñun ñu réagir nii loolu leen di tontu. non APR réagir ñu APR dañoo posé acte sénégalais yi réagir sénégalais yi dañoo taxaw xool APR daggal leen ba fa daggal soree di départ di ñëw. Mhm. ka mel ni man ma naan gannaaw Casamance la ma départ di dëgg mu la moom mu la. <laughs> ndax loolu la ma yëg. xam naa la wax bi. parce que est que vous vous rendez compte de ce qui a été pour la République. on a pensé que c'était pour la patrie mm -hmm. ils ont amené la déperdition la dépravation des mœurs ils ont causé un tort inouï am na ñoo xam ni à vie paralysé à vie parce que lan ab agent de police ou de gendarmerie moo taxaw jël crosse dóor ko ci sa colonne vertébrale côte cassée y a tellement de choses ñun ñu ngi ñu ngi sant yàlla di reetaan di kaf di kii y a des gens qui nous regardent au qui peuvent pas bouger. Mhm. exactement ouais. ce sont ces gens-là de l'APR. Khoureychi wax na ko nee na dafa coincé ci poumon yi mu am infection pulmonaire. léegi kooku kooku da ko daan respecté waa APR. kana non non mu kooku mënul respecté waa APR. donc APR xam nga lan lan lan la ñu am si ñoom. respecté leen comme ay doomi aadama xam ne ay sénégalais lañu comme ñun. Mhm. fa la ñu mën a yem. képp koo xam ni mu ngi woon ci yoon parce que APR nag ñi ci ëpp jàpp naa ni mooy APR boo jëlee APR jàpp naa ñi ci ëpp danoo baax waaye APR muul bi leen tiimoon la la leen jiite woon kanu àndaloon la moo ànd ak lu yéeme tiim nu ne nii darnu munuñ ci dara yàlla na toonu ka ba yàlla teggi ka waaw yàlla teggi ka yéen ngeen ànd ak moom taal réew mi ñëw taxawaat en un mois deux mois vous avez le toupet le culot de nous regarder de nous dire oui il faut faire ça bay yow waay waaye en passant àgguma sa. waaw waaw. bu neexee nag. Sénégal mën nu wàññi dund bi. la tax président basiiru Diomaye Diakhar fay wax ne nañ ko indil xam na ni mën na xam na ni mën na mën na ne xam na ka mu ngi liggéey ci impôt. lu tax APR quand monsieur Ndour parle de taxe il dit que wàññi woon nañ yow nga ñëw wàññi. Mm-hmm. xam nga lan la ñu def. ñu def. falu rek wàññi ñépp ne ñoo fi mën ñu tuddee ne press bi baal nañ leen impôt ñépp tàccu 2012 ñépp tàccu fii la ma toog laaj ko Mamadou Tunkara si man ak moom ak Nafissatou Diallo bu PDS ñu toog 2S ma ne ah c'est bien monsieur le président waaye li ma wóor bu wóor presse bi ah nañ nañ fexe ba dégg ko attention parce que pour plusieurs raisons te loolu feeñ na après ndax impôt yi leen wàññil départ moo jur presse bi ñëw lëlu. ànd ak président Macky Sall mu baax mu bon lépp ñu ànd ak moom une bonne partie. Ah. aujourd'hui ce qu'il faut à l'état du Sénégal mooy ñaari affaire ñaara mën a ne. Koor Samb Baye Ousmane Ngone Ndayaram ak ñëw seetaan ñaara mën na ne. qui peut le plus peut le moins. xanaa du def essence taal auto dem circuler ci dëkk bi BRT bu ñoo inauguré dafa jar mille personnes j'ai hmm. regardé les images tout dafa jar tout le ministère déplacé wu hmm. tout le ministère te inauguré woon rek ba pare mais mais gars yi dafa am dafa am lu war a changer c'est-à-dire que ce changement la day bokk ci rupture bi dafa am waaw day bokk ci rupture bi c'est-à-dire dafa am ay commodité yoo xam ne faw ñu départir ci le ministre peut inaugurer s'il doit inaugurer avec une équipe de techniciens une équipe de techniciens. qu'est-ce que l'assistante va faire à l'inauguration qu'est-ce que le chef de je ne sais pas quoi de, de, de département de xawma lan va faire à... attends c'est le ministre les techniciens ah, vous y allez vous ne dépassez pas dix personnes vous appelez les médias vous n'avez pas besoin de tintamarre inauguré nañ ko ñaari yoon. alors le problème c'est quoi <laughs> moi quand j'ai regardé les images damay xool gars yi bu ñuy filmer mhm. BRT bu ñëwee ba tolloog embouteillage bi nga gis BRT bi tali bi vide quoi y' a personne quoi fii y' a que bus fii nga gis oto yi rang. <laughs> c' est une image qui parle. le caméraman il s'arrange même pour éviter loolu quoi nekk ci digg bi. ma may xool image naan ko waaye doo wet gi nag boo ko ci BRT bi koy defal drone team que. wax dëgg yàlla. voilà ce qu'il faut changer bu ñu bëggee mu dox au petit détail près foofu ñuy xam ne lii ñu dindi que. allez demander à la présidence encre imprimerie. imprimante encre ak imprimante tout ça ça se budgétise mmh. la question qui a budgétisé et combien il a budgétisé combien il a facturé posons la question dans les bureaux le mobilier ah monsieur le président il va falloir changer le mobilier ah oui il va falloir mm-hmm. parce que il faut appeler l'autre mobilier ba marché ki war a changer mobilier bi day gagné ci la corruption d'en haut mm-hmm. tout ça nous pèse dessus tant foofu la mbir mi nekk moo tax am na ñoo xam ni bu ñu mënoon sax dem ci sëriñ ba ñu am affaire ak Ousmane Sonko sax da leen di gënal parce que la personne la personne est réputée yii dafa dëgër moom dafa wóo dafa woowle laa ilaha illallah Ousmane kilifa bi baal na dafa wóolala wuu il trans il transige pas oh là là il est mhm. nga kaa dégg soi-disant si sa réputation genre du maye dara mais ci biir du maye dara bi yow sénégalais dafa ay dañ koy wër ndomba ak noo aay gars yi dañ kaa wër ndomba xulil fu mu tàccoo ñu ne ko bu nee <coughs> ñu daw oui monsieur le premier ministre xulil bu yàggee day am confiance ci kooku mhm. kookoo kay def naka sudul noonu parce que ñooñu ñëpp te ñooñu ñëpp xam nga ñana ma répété ko fan yëpp maa ngi wax nag ñu ma ñenn ñi sax naan waaw booy il faut arrêter booy kii c' est l' administration du Sénégal le mal de ce pays. Mhm. Mm. l' politique day ñëw ne bëgg naa def dara am intention bu baax. départ ñi ne ci administration bi parce que dañoo tàmm deal ñenn ñi pas ñëpp ñi tàmm deal écoute affaire bi du leen arrangé bu jaaree yoon oui parce que maintenant tout est voilà il y une restriction il y a une réorganisation les voiture c'est un marché tout tout tout ce dont on a besoin marché la ay marché la ces marché la dafa am ñoo xam ne ñoo ko yore.